ginnaaw bu nu sante suñ borom subhanahu wa taala julliwaat ci yonentem bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yàlla jaajëfa seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxil xadim di ñaan suñ borom subhanahu wa taala fayal nu ko di ñaana seex muhammadul muntaqa suñ borom yàggal ko fi lool ba li mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal ñooñ lislaam mu àggale ko fa kawe njortam ci barke alquranul karim di wax ne asalaamaaleykum bokki M Media Group nooru daare bokki taalibe bokki jullit yi ginnaaw bu ñu jiitalee sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu ngi fas yéeni dikkaat incha allahu taala ci sunu émission zaadu nisaa muslimaati li nasihati al wal muminaati doon jataay boo xam ne jataay fàttalente la waaye jataay laayanti biir la ngir li ci alquranul karim wax ak li ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax mu mel ni jataay yi nga xam ne moo paase noo ngi woon ci dénkaan boobu nga xam ne Serigne Touba daf ko dénkoon soxna Penda Diop mu doon dénkaan boo xam ne bu am solo la bu mat a bàyyi xel ci la nga xam ne moom la cay joxañ ñu war caa aw ak la nga xam ne moom la cay joxañ ñu war koo moytandiku mu mel ndinkaan la boo xam ne mën na ne dañ koo dañ ci soxna da Diop waaye mbooleem jullit ñi mën nañ cee jariñu àddina ak àllaaxira ñoo ngi commencé woon te fa mu ko dénkoon alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaxfiru laki dénkoon na ko lam ko jëkk dénk mooy muñ ñëwoon nañ ci anam muñ mooy lan wa taqwa rabbiki ñëwoon nañ ci dégg dégg taqwa mooy lan dëgg dëgg mooy lan ñëwoon nañ ci nga xam ne muñ baax na ci kenn ku ci nekk waaye dafa raweti ci jigéen ragal yàlla itam baax na ci kenn ku ci nekk waaye dafa raweti ci jigéen mel ni li nga xam ne mooy muñ mooy ragal yàlla fi ci góor mën a teg ab tànkam ba àgg ci ci garaat yu kawe yi noonu la nekk ci jigéen ragal yàlla nag limu làmboo bari woon na am na loon ci waxoon xam ne buñ ci dee ñëw mën naa gën a yaatu lool waaye waxoon nañ ci jataay bi passé bokk na ci njariñ yi nga xam ne ragal yàlla am na ko suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne ñi nga xam ne mooy ñi gën a tedd ci jaam yi jaam yi suñu borom subhanahu wa mooy ñi ñi ko ragal inna akramakum inda allahi atqaakum Sëriñ Tuubaa waxoon na is akramul ibaadi inda allahi aksaruhum taqwa bil istibaahi ki a tedd ci jaam moom subhanahu wa mooy ki ci ëpp ak ragal yàlla ragal yàlla ñëwoon ci lan mooy digg digg ragal yàlla ragal yàlla itam bokk na ci ponk bi nga xam ne mooy koor bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala faratal na ko ci jàmm ñi dafa wax ne bu ngeen ko defee ak ragal yàlla man naa am ci yéen yaa na allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ponk bi nga xam ne itam mooy xaj makka bi ko suñ borom subhanahu wa taala farataale ci jullit ñi itam dafa ne koo xam ne yaa ngi dem di joxe ji sa ponk boobu na xam ne li ëpp ci li nga yóbbaloo li gën ci li nga yóbbaloo mooy nga am ak ragal yàlla wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa kon taqwa allah moom lu ama am solo la ci ab jaam bokk na ci ragal yàlla li nga xam ne moom la mën a may jaam bi suñu borom nee na su ngeen bëggee bunt bu ngeen fëgg ma tijji leen ko lépp lu ngeen jublu lépp lu ngeen bëgg ma defa leen ci ak jàpp ndal na ngeen ragal yàlla wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqhu min haysu la yahtasib su ngeen bëggee bunt bu ngeen fëgg ma tijji leen ko na ngeen ragal yàlla ragal yàlla boo ko defee su borom dina la wërsëgal foo ko foogi ak foo ko foogi wërsëg nag waxoon naa ko keroog noonu naa bu ne wërsëg day jàpp ne alal rek muy wërsëg waaye wërsëg yaatu na wërsëg na lool bokk na ci ragal yàlla li muy indil jàmm bi mooy su fekkee da bëgg suñ borom subhanahu wa taala la leeru xam yàlla wala la leeru xam-xam la euh, xam-xam boo xam ne danañ jàpp sax ne jàngoo ko ci ay téere te sax na dina la defal xam-xam boo xam ne jàngoo ko ci ay téere waaye mën nga àgg ci xam-xam boo xam ne danga ci jaaxal ñu bari dangay nga ragal yàlla wa taqullaha wa yuallimukumullah xam-xam boobu nag xam-xamu zahir daf ciy dugg xam-xamu baatin daf ciy dugg bokk na ci ragal yàlla li nga xam ne dana ko defal ab jaam mooy am mbir yu yëwén say mbir yëpp yëwén addina ak al waaye nga am njéggalu suñu borom subhanahu wa taala àddina ak te jéggalu suñu borom li jàmm bi war a gën a gën a ittewoo ci àddina ak alaxira jéggalu suñu borom ci la bokk yaa ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima kon ragal yàlla tey wax lu saw yoon nekk moo te nekk lu saw yoon nekkut dana am nga dana waral nga am yéwénuk mbir àddina ak àllaxira yéwénuk mbir àddina boo ko doon boo ko doon boo ko tënk rek mooy nga texe àddina texe àllaxira waaye suñ boom jéggal la say bakkaar bakkaar yi nga xam ne lu mën a alak doomu aadama la ci àddina ak àllaxira loolu ragal yàlla dana ko defal ab jaam kon loolu mooy sunu jataay bi nga xam ne moo passé woon ñu ci doon wax ci ñaareel bi tomb bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dénkoon na ko soxna Penda jóob ñu ko waxee dénk naa la muñ waaye dénk naa la ragal yàlla kon loolu mooy sunu jotaay bi nga xam ne moo passé woon di ñaareeli yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Diop ñu war a dikk ci ñetteelu tomb bi mooy at-tawba alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaxfiru laki kon duumi ala tawbati bil ijtihaadi wala tamili li siwa rashaadi duumi ala tawbati bil ijtihaadi wala tamili li siwa rashaadi ñetteelu tomb bi Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Jóob mooy nanga sax ci di tuub danga farlu te bul mukk mukk jëm ci ludul dul ak njub tuub nag moom lu ama am solo la ci ab jaam tawbatul insani fawran wajabat zikran wa sunnatan wa ijma'in xad sabat tuub alquran karim moo ko saxal sunna yonent bi sal sallallahu alayhi wa alihi ko boroom xam-xam yi dëppoo ci ne tuub lu war na nga xam ne tuubug jàmm bi jëm ci boromam subhanahu wa taala ndax jàmm bi suñ borom daf koo sàkk mu doon koo xam ne kuy tooñ suñ borom subhanahu wa taala kuy def bàkkaar digganteem ak boroomam waaye nag dafa bokk ci turi suñ borom subhanahu wa yi nga xam ne bari na lool waaye li ci gën siiw mooy juróom-ñeent fukki turi ak juróom-ñeent dafa bokk ci turi suñ borom subhanahu wa yi nga xam ne moo gën a siiw def ca bokk euh, alxafuur xafuur nag mooy jéggalaa jégal nag ku ni jégal mooy ki def bàkkaar bu fekkente ne jàmm ni suñ boom subhanahu wa taala bind ñoom ñëpp kenn du ci def bàkkaar ba nga xam ne turu suñ boom boobu nga xam ne mooy alxafoor te mooy jégalaakoon bi mën na ne tur woowu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg màndargaal tur woowu mën naa baña a feeñ ndax jéggal moom ku def bàkkaar lañ koy def su fekkee ne ñëpp ànd nañ ci maase bañ a def bàkkaar nag kon daanaka tur man na nañu digg digg ab jubluwaayam manes na ko bañ a xam waaye comme jaam ni suñu daf leen a sàkk ñuy tooñ di ko jéggalu te mu wax ne su fekkee ne da ngeen dama leen a sàkk indi leen ci kaw suuf te du ngeen def benn bàkkaar dana leen fi jëlee indi fi ñoo xam ne dañuy def bàkkaar di ma di tuub di ma jéggalu ma leen di jéggal waaye nag boo defee bàkkaar nga jiggul suñ borom xam ne matatik doomu aadama moo àgg ci muy def ay bàkkaar wala mu koy wax wala mu koy xool waaye nag bu loolu lépp amee nag ngay xam ne ab jaam nga bu matadi boo xam ne dangay ngay di sukk di jiggulu sa borom subhanahu wa taala wa duma ala tawbati fi kulli zaman min jamii isyaani sirran wa alan sëñ Tuubaa nee na sax ci di tuub jamono ju nekk ci lu nëbbu ak ci feeñ bàkkaar doon loo xam ne lu lu rëy la lu mata lu mën a alak ki la ci àddina ak alaxira ndax bàkkaar day wool ak xol te alquran ne na wulun lil xaasiyati xulubuhum an dikrillah wala min dikrillah bugal ñel ñi nga xam ne seen xol dafa wow walif ñuy fàttali ko suñu borom wala ñuy tudd suñu borom wa taala loolu moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne isi sunuba turizul xasawa kama mada utujibu shaqawa eh, ay bakkaar ay tooñaange yi nga xam ne jàmm bi mi ngi koy def di ko tooñ borom subhanahu wa taala day waral ak texee di day waral ab xol sab xol wow kon bakkaar di def bakkaar te du tuub bakkaar bi di ko jégglu suñu borom subhanahu wa taala day waral sab xol wow te bu sab xol woowee nga bokk ci way texee di moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ataibu zanba kaman la zanba lahu ki nga xam ne dafa def bakkaar mu wëlbati ko xam ne moom mii tooñ na boromam waaye def na def na ak matadi ba tooñ boromam ci def bakkaar mu wëlbati ko tuub bakkaar boobee jiggulu boromam subhanahu wa taala xam ne suñu borom eh, def bakar si diggante ak morom ak matadi doomu aadama rek la waaye ku xam dëgg dëgg ku xaman dëgg dëgg suñ borom doo def bàkkaar dana ëpp ci ngay def bàkkaar waaye nag matatik doomu aadama moo àgg foofu mu ne nga wëlbatiku tuub bàkkaar boobu yaa ngi mel ni ku defewul bàkkaar ata ibu zanba kamanda zanba lahu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax man aznaba zanban summa nadi alayhi fa huwa kafaratun lahu nga xam ne dafa def bàkkaar ba pare wëlbatiku tuub bàkkaar boobee daal koy rëccu mu metti ko lool na loole mooy ak kafaaram kon def bàkkaar mënta ñàkk waaye nag lu mata moytandiku la lu mata mata moytandiku la ci jëmmi doomu aadama mu di wax luy jur bàkkaar wala mooy xool luy jur bàkkaar wala muy jëf luy jur bàkkaar waaye bu loolu lépp amee nag nga xam ne mucc ci jafe nag ba nga def ko nga tuub jéggulu suñu borom delluwaat ci xam ne dëgg dëgg ki jéggalaa kon bi mooy suñu borom subhanahu wa te ëpp na ci ab jam mooy tooñ borom ba pare bañ koo jéggulu wala mu tooñ ko rek ba pare du yëgut sax ne lii ak tooñ la wala bàyyi ko xel jàpp ne mi ci ab dundam dundam gi gën a jàkk loolu moom lu ëpp lu bàyyi xel la kom def bàkkaar mënta ñàkk boo ko defee tam na nga wëlbiku tuub dellu ci subu borom subhanahu wa taala xam ne suñu borom rëy na wolif di ko di ko tooñ te doo ko jéggulu wala nga di tooñ ba pare xamoo ne def nga bàkkaar wala sax bàyyi wu xel jàppan yaa ci sëg dund gi gën a jëkk loolu def ci ab jaam kon mbokk yi itam lenn la ci lenn la ci li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Diop ci ci moytandiku tuub wala nga ne moytandiku def bàkkaar def bàkkaar wala nga def bàkkaar ba pare bañ koo tuub duumi ala tawbati bil ijtihaadi wala tamili li siwa rashadi kon xam naa bokk yi dañuy taxawlu foofu insha allah taala ba beneen jataay bu ndikkee euh, continué waat jëm soob na suñu borom waa daal ñu bàyyi xel ci baax a baax ndénkaane bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dénk na ko soxna Penda Diop bokki soxna yëpp war war koy déglu di ci bàyyi xel yëmul ci bokki soxna yi waaye bokki góor yàlla yi ak mboolem ku ci namm ak jubbanti ko rek àdduna ak àllaaxira koy bàyyi xel bu baax a baax a baax jigéen nag moom boo gisee Sëriñ Tuubaa beral soxna Penda Diop dénkaane bi ak biñ na dénkaan lool sax jagleel ko ñu wuute ci taalibe yi waay bi def see def see bokk boo xam ne jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel ndax jigéen la ko dénkoon te jigéen nekk lu ama am solo koo xam ne ku nu war a waajal la ku nu war a tànn ku jara waajal la ku jara tànn ndax al ummu madrasatun isa aadataha aadata soban tayyibal arab kon loolu ci jara bàyyi xel la suñu jamono ji nga xam ne jamono ju doyo doy la lool sax jamono ji doyo doy waar ci rawat na jigéen ñi ñi nga xam ne ñenn ci ñoom ñu leen leen di jëli leen def marchandise nga xam ne dañ leen di def seen marchandise mu nuy jaayi wala ñu leen di jaaye seen marchandise ci uh, anam yu bare bare bare yoo xam ne yu wuute wuute wuute yoo xam ne dëgg dëgg bu amut ak ràññee man nga koo bañ a ràññee waaye nag yal na suñu doom sàmm nu aar na sàmm na suñuy jigéen aar leen ba lu jamono lëndëm lëndëm lu jamono yàqu yàqu yàqu suñu borom jéggal na sàmm na technique ci ak jub ku ci jum ba def bàkkaar itam suñu borom jéggal la eh, yërëm la sutural la at nag àlaxira ci ba Seexul Xadiim kon foofu lañu taxaw ba insha Allah taala beneen jotaay dikkee ñu continuer waat ci wasiya soxna Penda Diop insha Allah taala salaamaaleykum wa rahmatullahi fa fi masaaya la yartabu tayyaaru وهو المتم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey